réew mii ñu nekk ñu bari xam-xam ñu ma naw rek ñoo fi bari lool dinaa ci tudd ay tur docteur Mansour Sall bokk na njàng ci Tunisie muy xalifa sëriñ Abbas Sall di taaw mhm. boole na ñetti yëf nijaayu Abbas Wadd am na plusieurs doctorats mhm.